muy tànn njiitum réew tabaarakallaahu di lu ama am solo ci pénc mi di bés yi nga xam ne réew mi daf koo réyle nga xam ne sunu démocratie loolu lay joxe nu ànd ñépp defe ko defin wu civilisé tànn kenn ginnaaw bi yàlla tànnee waaw ñu sabablu kon daal koy won ginnaaw nag wan ko ginnaaw fàttali ki nga xam ne moom lañu tànn li ko saar wi ñu tàmbali woon dimb wax naag yow wax naag nun alxuraan ci boppam moo noonu waaw fiihi naba'ukum wa naba'u man qablakum wa naba'u man ba'dakum ilaa yawmil qiyaama loolu mooy lii xaar yow mi ñu tànn lay xaar mooy la xaaroon Muusa te sunu boroom bëggoon ko ca ca pénc ma ndax pénc ma soxla woon yooya waaw bi borom bi subhaanahu wa taala waxee euh, firaaw na ci boppam wax ay taxawaayam ak nammel ak la ko naqari ca moom ak la muy def waa ci ma ak la muy def banu israil la muy def étranger wala boog apartheid ba muy doxal sunu boroom daf caa teg lu am solo muy baatu wa nuridu wa nuridu wa nuridu bu la ko bu la ko xajir jàppale waaw daf ko conjugué ñetti yoon bu fekkee nu lañ koy waxe fa araada fa aradtu fa aradna sunu boroom fii wax ne wa nuridu wa riidu li tax yàlla ne wa nuridu mooy la la firawn doon teg waa pénc ma la bëgg waa pénc ma ci ca mu ne wa nuridu yàlla loo bëgg mooy dañoo bëgg an namunna ala lasina studifu muy benn wa nuridu an namunna ala allazina studifu fi l ard wa najcaluhum aimma wa najcaluhum alwaarisin ñett yi la sunu borom rëddal politicien bi nga xam ne moom lañ teg ci al arsh wala boog moo toogee fauteuil bi ñun doon xëccoo te mbooloo bëggoon ko waaw mbooloo bëggoon ko nee na ñeenti téeméeri li ko manqué bariwut waaw ko kenn jëlee léegi liggéey bi nag day tàmbali ñu teg politik bi nag continuer ba ci ñett yi ñuy bëgg a wax walla ñett yi sunu borom wax ba ci ñeent sax tabarkalla ñu def ko ba ca jiitu mooy wa nuridu an na mun na àll si nastudifu fi ard mooy noggatu alhamdulilah nee na dafa bëgg noggatu jeex ci kaw suuf waaye noggatu jeex ci euh, pinc mi ci xeeti noggutu yépp nag ndax noggutu ca daara ja dongo yu mag yi ñoo ko daan def dongo yu ndaw yi waaw noggutu ca daara ja dongo yu mag yi ñoo ko daan def dongo yu ndaw yi waaye noggutu ci péncit ña nga xam ne ñoo tooge pénc ma ñaare ñoo koy def eh, ca ña nga xam ne ñoom lañu ñu yilif sunu boroom bëgg noggutu dañ ba politiciens yi duñu noggutu xeet wi waaw ba politiciens yi duñu noggutu xeet wi néewal noonu doole loolu sunu borom daa bëgg mu jeex kon nag na jeex waaw kon na jeex sunu boroom dafa bëgg loolu jóg ci pénc bi bu benn politicien xalaata noggutu Euh, xeet wi ci xeeti noggutu yépp ndax mooy tax jàmm am ci pénc mi waaye wa naj'alahum a'imma nee bu noggutu jeexee ñëg ni ñëpp ay kilifa lañ ñu def leen ay kilifa waaw bu noggutu jeexee rek ñëpp yem ci pénc mi ñëpp nekki kilifa wa naj'alahumul waarisiin nee na ñu ñu ñu ñu ñu féetewoo la nga xam ne kenn ku ci nekk lay sa cër ci ma nga jot ca kenn ku nekk lay ci pénc ma nga jot ca waaw tabarkal loolu lu am am solo la ndax léeg-léeg nga dégg danaa créer nangami emploi waaw léeg-léeg nga dégg ko waaye réew mi ñëpp am nañu emploi waaw li ci des kay mooy kone la muy yëngatu nuñ koy gardeele la ca nekk ci ikraam nuñ koy gardeele la ca nekk ca lam cay fore waaye penc mi ku xëy ku ne yaa ngi xëy ci dara waaye buñ xeebal kenn la muy xëy nanu fexe ba sécuriser ko ko rek bàyyi ko muy xëy ko gont nit ñëpp jàmm na ñooy jàmm na ñooy loolu ñu ngi koy séentu ci ki ñu tànn bu nu noppee ba yëg ne officiellement kii lañu tànn euh, yooyoo ngi koy xaar waaw mu ngoog loolu mooy ñett ba ko ñenteel wa nu makkina lahum fil ard waaw kooku lay xaar kon ki ñu tànn wa nu makkina lahum fil ard nu makkina lahum fil ard bu ko gaa amee tukki bi wàññeeku dem ci géej gi barsàq mbaa foofu nag professeur liggéey bu réeréeré lay xaar liggéey bu réeréy lay xaar ndax imkaaniyaat yi nga xam ne moom la waa pinc mi soxla kenn ku ne mën a toog te mën di xëy di gont tey am teraanga ci la ngay xëye ko gont ba doo xalaata dem bàyyi sa njaboot doo xalaata war géej gi te xamu foo jëm loolu sunu borom ne ne mi ngi koy séentu ci euh, politicien bu ñu tànn def ko ci pénc mi lu lay lu lay lu lay ñeent waaw ba ca teg mooy ñu won firaaw naag Haamaan ak seeni soldaar ñoom ñépp ne yàlla lu mu joxoñ na tey lay am daw ba raw ko mënula nekk waaw daw ba raw loola mënula nekk borom bi subhaanahu wa mooy wax ci alxuraanul karim di joxoñal programme politique waaye professeur yéemeeg alxuraan ak doy waaram tax na yàlla wax nu ne ku mel nii ku mel nii programme bu mel nii mu ne mu ne yombul mag waaw programme bu mel nii yombul mag waaw programme bu mel nii man nga ne loolu ñoom yaanaa daan mas di junju lu mel noonu rekk ko man waaw ko xam ne day nekk gone juddu waaw bala ko pinc mi di wàll mu mën a jóg waaw mu mën a jóg moo tax nag mu nekk li ñuy wax xissab Muusa ak fi mu jaar ak moom fépp ak fi Muusa jaar ak Firawna waaw ak samp bi yàlla sampoon ni ko doxale ak Muusa na mu mucce ak euh, pexe ya na def yëpp waaw yi Firawna def yëpp ku ci nekk ci ku ne ci pénc bëgg koo soppi sa xel dem ci yooyu waaw sa xel dem ci yooyu xista bu am solo la boo xam ne xajul ci émission waaw xista bu am am solo la tabarkalla waaw xista bi am solo gi tax na borom subhanahu wa taala wommatal ñu ko ci aw saar waaye alquranul karim daanaka laay euh, saar woo dem boo ci fekkul ay aay it fekk ca jenn aay ju jëm ci joxoñ joxoñ ki nga xam ni mooy Muusa waaw joxoñ ko tabaarakallahu mu liggéey liggéey bu rëy ba ba la ko dal ca pénc ma dal ko ndax yàlla mu bëggoon a kéré lu ko génne dëkk ba waaw yàlla moo bëggoon na kër ya lu ko génn dëkk ba te wa nuuri du jëmmam moo dugg ci biir kon lu yàlla nar rek tabarkalla loola dana am waaw ngeen gis nam génne dëkk ba te mooy fekk ñaar ñuy xeex muy sotle kenn ka farrey adversaire ba waaw ci mën nag daat ne kii moom fu ñu ko gis def ko ci kaso bi mbaa ñu rey ko benn député jóge ca député ya ñëw wax ko ko Moussa génn dëkk ba fu mu jëm xamu ko tilxaa amad yenn rekk la jëm waaye xamu fa ndax musu faa dem waaye koy daw ko ne léeg-léeg nga daw ba romb foo xam ne boo doon dox ak sa sa sago ak sa xel doo fa jaar Moussa génn dëkk ba waaw dem tukki am fa fukki at waaw fukki at door ñibbisi waaye kër ba mu ñibbisee rekk tabarkàlla la liggéey ba da liggéey ba sotti waaw kër bu mu agsee Madiyaana yi def na fa liggéey bu am solo alxuraan dañu ko netti li ba yowmal xiyaam mooy ñaari jànq ñam fekkoon ñu ne ca teen ba di aj ajal seeni xar te néew doole ca ca wëgg xar ya walla jurga waaw musaa ñëw laaj leen ñu tontu ko seen tontu lu rëy la mooy yéen lu ngeen xewle ana jigéen ak na cib teen aw góor ne fa ah xalu jigéen ñi ne ko nun du nu jaxasoo sàmm su góor si waaw dund jaxasoog sàmm su góor si fii la taxaw ba sàmm su góor si root ba doyal ba seen ndab fees ba seen jur ba màndi ñu dem waaw ñun ñu door a dem ci teen bi luñ ca mën a amee amee ko ca lu lay benn bu ñaaral bi soo gisee nuy génn sunu bàyyee màggat wa na cheikhun kabir sunu bàyyee màggat lool bi muy man moo fi daan ñëw di ko buuxante góor ñi ma ne fii ci xissa bi fii ci xissa bi ndekete jigéen jigéen dañ koy taxawu ba du def métier yu mënut taxawu ko ba ba du def métier mu dul métier ndax métier woo métier mu dul métier daf koy génn ci njigéene yóbbu ko ci leneen loo xam ne du doon ngóora waaye jóge na ci njigéene loolu ku ñu tànn kiñ tànn ci yéen na ko bàyyi xel ku ko yaatal mu yaatu waaw moo tax bi ñu waxee ñaari baat yooyu am na ca baat bu ñu waxut mooy baatu te amuñu jëkkër <laughs> waaw baatu te amuñu jëkkër baat boobu nag ñoom jibaluñ ko waaye daal liñ mën a waxtaane ci pénc daal te koy waxtaanee góor goo xamagut ñaari baat yu wax nañ ko laa nasqi waaw hatta yusdira ria wa abuna cheikhun kabir nun kat jaxasoo góor ñi di wëgg sunu bàyyi daa màggat bi Moussa déggee loolu lam def lañu ñëw séentu ci pénc mi pénc mi di ko def koo xam ne kii yaa yor yëf yi nga di ko def mooy mu jóg rek tabarkàlla wëggal leen dem toog ca kër ga maanaam wuutu seen baay wuutu seen jëkkër waaw wuutu seen baay wuutu seen jëkkër wuutu seen càmmiñ defal leen la muy def ndeysaan tabarkàlla moo tax alxuraan mbokk yi formation yi mu am defaru gi ci nekk orientation yi ci nekk waaw Roger waaw Roger Diouf <laughs> tubarkalla waaw ak Doro Sile ñoom nele na ci bitim réew ndeysaan alxuraan li ci nekk ci orientation musaa defal leen yooyu ñu manqué wutu seen baay wuutu seen jëkkër wuutu seen càmmiñ fa saqaalahuma daal leen di wëggal xar di wëggal mbokk yi kon yooyooy xaar koo xam ne kii teg nañ ci sa loxo lii di pénc mi waaye wala xad wassalna xaw la ci biir saar wi la nekk mooy ci wàllu diggante pouvoir ak média diggante pouvoir ak media pouvoir bi mooy ki nga xam ne moo ne ci bopp réew mi média mooy ki nga xam ne moo naan def na nangam waaw media media nag nekk ñaar waaw privé ak public wala média d'état ni ñu koy tuddee ñaar ñooñu itam ginnaaw alxuraan ci saar yi dafa wax lu am solo ci politique bi dañ koy dënk rek daf ca dugal naa qad wassalna xaw la mooy kiy jël événement yeeg xew-xew yeeg wax ji fi mu xewe jottili ko ñu nga xam ne fekki wuñ ko woon xewewut fañ nekk mbokk yi wan nanu ginnaaw tànn gi nanu dëgmal nag liggéey bi fexe ba sunum réew dabi réew ya ñi nga xam ne ñoo tolloo ñoom ñu raw leen ñi ñuy séen ñu raw leen ba du tund dootuñu jër jërëgeen jëf ci ànd beeg Sud FM seen rajo ci tàmbali ba ba léegi waaye jër jërëgeen jëf ci euh, euh, tabarkàlla ñaan yeeg taxawaay yeeg yépp ak seen a yëkk tey jataay bi bu leen neexee ci kanam tuuti ngeen woote ci 88 628 98 98 ngeen bës 2 sunu mbokk yi xëy ci xibaar yi ngi ne taxaw yor seen i këyit bëgg leen a firiñ fàncal xibaar quoi firiñ fàncal ko ci wolof ñaan leen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bi ak ci sponsor yi yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poos dara wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.